lamto e lamboto e weybati taala wa barakato mbokk yi ni déglu du ñu seetaan ñu ngi dellu siwaat ci sunu jataay bi nu baaxoo ànd ak yéen muy sunu émission bi nu tuddee ku wal mburu tudd ab dëkk ñu ciy dalal ay nit ñoo xamante ni dañuy waxtaane lu jëm ci wàllu diine ak lu jëm ci actualité ak lépp loo xam ne lu itteel la rek tan war ko xam rek ñu waxtaan ci tey jii nag ñu dalal ci kenn koo xamante ni ci dëkk bi la dëkk muy sëriñ Khadim Dieng nekk fii ci dëkk bi dëkk Daaru Minam euh, yaroo ci kër sëñ ba Bassirou waaye doon koo xamante ni tamit boobu ba léegi mu jógee ci daara ji teewul mu ngi nekk ci wàllu social nekk tamit di yëngu ci lépp loo xamante ni luy développé la ci dëkk bi mu nekk ci di ko dale ci wàllu politique sax bokk na ci ak yeneen yu bari ak social bi nga xam ne ci lañ ko gën a xam sëñ Khadim ñu ngi lay nuyu fii ci sunu 24 actu. maa di nuyu mboole ñi ñu suivre ci émission bi ñëpp leen nuyu leen sant di gërëm ni e, di la gërëm bu baax ci invitation bi di am contentement bu rëy ci dajeeg yow waxtaan ci lu jëm ci wàllu dëkk bi ak sociale bi ñuy def mu jëm ci doomi aadama yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi te yeyoo dimbale waaw ci dëkk bi nga xam ne mooy dëkku Serigne Touba bi ndaxte euh, bu ñu xoolee dëkk bi dafa am ñaari parti ñi nekk ci kaw muy kilifa yi ak ñi nga xam ne ñooy taalibe yi nekk population bi nekk ci dëkk bi ñu ci nekk am taxawaay bu ñu war ci suñ digganteek ñoom ñi nga xam ne buñ féetee ci kaw ba mu ëpp it yaakaar naa ñi ci suuf duñ mën a jot ci lu bari ci wàllu ndimbal ak social léegi nag ñun ñuy dugg di dox ci loolu ngir ñi nga xam ne mënuñoo àgg ci kaw ñun ñu mën leen a demal ci kaw ñu jàppale leen te yàlla tax ak euh, taxawaayu dëkk bi nga xam ne sëñ bi da koo sanc ngir yërmande kenn ku nekk ci ñun am ci responsabilité war ko dox ci nu mu gën a rafete ñu nit ci côté biñ ci mën a féete muy dox ci seen diggante ak ñi nga xam ne am nañu ñoom relation te bokk ak ñoom xalaat ñu ànd ak ñoom taxawu leen ci wet googu loolu moo waral suñu teew fii tey waxtaan ci yow. ñu bëgg tey waxtaan ci wàllu ni mu ko waxee social ak dëkk bi ak ñi nga xam ne vraiment xool sancaan yi toujours da ngay dégg sax. ñu bari ci wàllu politiciens yi sax yoo xam ne sa sancaan yi sancaan yi dëkk bi mu metti lool nag nga gis nit ñi toujours nga gis ñoo xamante ni fu nu dégg aw xew sax du leen di jaral ñoom ñu ŋàbb seen ab siwo àbb seen tëj seen kër dem yendo fa bu nu fa yendoo ba ngoon bu nu añee sax dañuy tibb yóbbaale ak yu bari lu demee ni robine yi aw yoon jafe na leen yépp jafe na leen ñu bëree bari sëñ Xaadim yow nga tàmbali ci yenn jamono nga tàmbali ci wàllu social di ci yëngu ci dëkk bi. waaw tàmbali naa ko nag euh, depuis 2016 laa ci gën a yëngu ndaxte booba dama doon def euh, tournée boo xam ne dama àndoon nag euh, nit koo xam dafa am yërmande ci di jënd ay dund ceeb ak yooyu di ko yóbbu ci quartier yu sori yi di jàppale nit ñi loolu sax jamonoy nawet la woon waaye ñu gisoon ne dem bi xawoon na jafe lool ndax li ko waral mooy quartier yu ci bari amul ay yoon. booy xool am na quartier bu ñuy wax Buxatal Mubaraka mm-hmm. boo doon xool tey ci population mu ëpp ci Touba mm-hmm. ndax 38 délégués de quartier ñoo fa daje mm-hmm. waaye quartier boobu tey boo fa bëggoon a jug dem tey jamonoy nawet da nga jaar fu sori bu doon fi gën a jege di nga ko jaari fi sori ngir yoon wu naqari te ba noppi fi mu ne quartier boobu li muy bari bari ay population bi toll nañ ci cent cinquante 000 te benn mètre tali sax amuñu ko. kon foofu dem fa nawet lu jafe woon la jamono jooja ci laa gisee ne nag ñii jot na pour ñu jug taxaw ngir jàppale leen boobaak léegi it euh, ñi ngi ciy bay suñu waar ci relation yi ñu am ci wàllu ñi ñu seqal politique ak relation ñi ñu am ci ñeneen ñi nga xamante ne bi dañu am yërmande ci mën a jàppale nit ku toll ci situation yooyu euh, ci loolu nag moo tax euh, tey ñu dox ci ba yegg si fii yemuñu foofu sax ndax daaw rek ci 2017 bi demoon nañ côté Alieu maye fa ay courant lampe ak euh, ay ay robinet comme niñ ko defee ci yeneen quartier yi booy xool euh, bu xatal mu baaraka googu quartier bi ñu wax umul xuraa fa lañ tàmbalee def nañ fa social may leen ay robinet ndax boo fa nit boo demee ci moom waxtaan ak moom jafe-jafe bi mu mënta ñàkk nga xam ne moo ko war a gën a jege ci loolu nga koy jàppale ba noppi biñ demee dañoo gis ne am na fa ñoo xam ne pour ñu am ndox faaw ñu def lu mat un kilomètre te léegi dañuy obligé jug suba teel fajar lu mel na euh, 4 heures wala 5 heures du matin pour mën a teel a am ndox mën a xëy liggéey ñu fekk leen ci jafe-jafe yooyu nag ak yeneen i jafe-jafe waaye ñun nit ñu fas yéene loolu noonu saafaraw ba noppi man li ma ci man def naa ko keneen dina ñëw def li man keneen def li man bu ñëpp bu leen ñëpp bàyyee xel rek ñu taxawu leen situation boobu léegi mu réglé ñu jàll ci beneen loolu. ci wàllu sociale yan ngay yi nga koñ yi nga dem ak ak di def sociale yan lan la gën a jàmbat ne la lu nu manqué la loo xamante ni yun la yu ñuy gën a jooytu. li ñuy li ñuy jooytu bari na booy xool daanaka danga nga naan amuñu dara sax ndax ndax moom fu manqué pour dara nekk fa du yomb. courant manqué fa ay ay yoon amuñu ko. dund bi it demeewul noonu ndax góor ñi ñooy liggéeyi jigéen ñi xam nga léegi toogatuñu waaye foofu fi mu ne jigéen ñi mënuñoo xëy dem di liggéeyi ndax buñ ko defee rek. kër yi du am boo wàccee tey boo bëggoon a naan sax doo am ndox moo naan fi ne fekk naa fa daare alxuraan joo xam ne xale yi sëriñ daara bi daf ne ma xale yi dañuy mujj di wut pot dugg ci quartier yi danañ dugg lu mat fukki kër pour door mën a am luñ naan ma xëccal leen robinet ba ci biir daara ja loolu nga xam ne ma jafe-jafe boobu ña ko fay dund tey boo leen xëyoon sampal ay potoy courant courant bi dana leen leeral waaye yaakaar naa ñu am ndox ndax mbox moom nit bu yeewoo moom lay njëkk a soxla waaw loolu moo tax ñu tàmbaleek ñoom foofu waaw def nañ tamit euh, waxtaan nañoo kilifa yi ngir ñu xool man bu ma amoon la ma gënal président ci boppam bu ñëwee Touba dafay demal boppam ba xam la fa ne ndax am na ci luñ jottali luñ ñu jottali ñun ñu jottali leen ko waaye loolu ba tey doyut ndax bu fa demoon dina gis ne lii ñu koy wax lu wér la ndax Touba dëkk la boo xam ne àgg na foo xam ne fi mu ne am na jafe-jafe boo xam daal man yaakaar naa war nañu ko dépassé waaw ndax fi mu ne mënoo ne dëkk bi foo tourné ay sànc la ñu ngi tali mm. te ku ne xam na ne tali moo gën a seer am ndox waaw mm. ah, boo xoolee benn mm, kilomètre tali rek mën naa tabax ñeenti forage léegi bala ñuy egg foofu nag man gis naa ne jàppale nit ñi bañ am ndox ba noppi ak courant yaakaar naa ñu door a avancé ci leneen fi ne yegg nañ ci jamono jooju. côté boobu nga wax tamit ci wàllu santé ñi nga xam na ni feebar di faju ay kilomètres. benn guddi de feebar mën na laa dal guddi taxe boo jël sax doo ko am hôpital bi nga dem sax bi gën a jege kenn xamul nu waay bi mu sori ci ñoom loolu it noo ko gisee foofu. joytu nañ ma yooyu yëpp ndax hôpital moom amuñu ko sax lañ ma wax ñoom. soo xaadim ñu dellu si yow da nga yënguwaale ci politique yi tamit di defaale politique euh, yaakaar naa ne sancaan yi nekk foofu wax nga ko la fa nekk ci ay nit amul sax ci biir ville bi ci ñoo xamante ni fa ndax euh, ñi fi nekk nag di wax yu euh, bari damay dégg politiciens yi ñu naan social yi ñu fiy def ni ngi dimbali sancaan yi ndax ngi yéen loolu rôle boobu ban rôle ngeen ci taxawee ak euh, soo ci soo doon lancé pour ñu jàpp leen ñoom ci ban côté nga jàpp ne moom lañ leen gën a mën a jàppale. waaw xam nga politique moom ñi koy def te doon ay responsable politique ñooñu ñu ci ëpp dañuy naxe rek ndax fi ne tey bu président jëlee nit samp ko Touba jox ko ay moyens. kooku bu jógalul boppam mm. solu daalam dem ci nit ñi mm. ñu wax mu dégg mu saafara mm. jafe-jafe yi day gën a am ndax intermédiaire yi dox ci diggante bi di ñëw tey di toog waxtaan ak yow suñ saaliwu man kat am naa mbooloo am naa nangam nga yëkkati xaalis jox ko mu dem tàngal kafe dajale waa koñ ba cinquante mille wala cent mille francs loolu fajul dara nga dem fa fekk leen fa jël 3 millions wala 4 millions defal waa quartier bi ay robinet moo ko ëpp importance fuuf te loolu lu yomba def la ndax bu ñu xoolee président am na yéene ci Touba li muy def lépp li mu man lépp mi ngi koy def pour Touba waaye ñi ko fi nekkal responsable yi ñoo seen i taxawaay dafa des ci lu bari ndax fi mu ne kum ci doonoon tey suñ xasee ne moo fi nekkal président boo ko bëggee jot téléphone sax problème lay nekk da ngay dégg ñëpp di ko jàmbat ñi nga xam ne ñoo ko war a jàppale duñ mën a jot ci moom ñooñu nag buñ jotut ci moom ña fa nekk di dund jafe-jafe yi duñ mën a jot ci moom waaye nag liñ manqué daal mooy koo xam ne day jóg solu dàllam dem ci nit ñi xam seeni jafe-jafe saafara ko loolu moom amagu fi xëy na nag mën naa am ci programme yi am ci kanam loolu am ñun nag loolu lañ jug taxaw pour di ko pour xeex ko maanaam waxuñu ne dañuy xeex politiciens yi waaye dañoo bëgg population bi ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe yu metti président xam ko jàppale leen ci loolu moo ñu tax a moom li nga wax moom joti wun ci président ki fi nekkal président rek lan joti. joti wun ci xalifa général de Mouride ñi ne ñi nu jote mooy dong yi xaw a mën a duggante di dem ak ñoom. ñooñu lan jote kon li nga wax ñooñu ku leen di dimbali faaw nga wàcc sa niveau tolloog ñoom. ñëw jege leen xam seen situation ba ci wàllu kii maa ngi koy fàttaliku kër sëñ Muntaxa xam naa léegi sax xataay bi waaye bu njëkk boo fa masaan a jaar bëccëg sa yaram day daw da naa fii dara dafay xew ndax nit ñi di wut si départ mu leen koy jox xaw ma loolu waxtu yàlla sax xataay bi mayati na ko wala ba léegi jàpp naa ne du ko du changé waaye waaw dafa yokk waaw loolu boo doon seet kër Sëñ Abdou Fatah Sëñ Fàll gi boo fi jaaree yor yor da ngay defee ne dara dafay xew ak yeneen kër yu mel noonu te ñoom duñ mën a joti ca kilifa ga te mën a joti léegi nag jot na liggéey bi nit ñu bari def ko muy seen métier mm-hmm. ku nekk ki nga tànne nga jàppale ko ñu ñu def ko liggéey yow jàpp nga ne liggéey boo mën a rester ak yan partenaire nga am yoo xamante ni jàpp nga ne ñoom daal mën nga cee liggéey ak ñoom ak ñoo ci doon liggéeyal. waaw ñi nga xamante ne ñoo ma jàppale moom ñooñu euh, amu ci kenn koo xam ne daanaka dinaa mën a tudd turam ndax li tax mooy ñoom doxewun ñoonu waaye dañ koo def ngir social ñenn ñi ñi ci des ay politiciens lañ maanaam dañuy jàppale président nag naam bëgg mu am ndam ndax xam nañ yéeneem ci réew mi ak ci Touba. waaye dafa mel ne ñun sax am nañ ci jafe-jafe ñun ñi koy def mm. ndax tey keroog bi ma demee eh, umul xuraa may leen ay robinet sampal leen ko mm. bi ma fu jógee bi may dem man dong ànd mm. maag plombier bi ak eh, chauffeur bi mu doon yóbbu bi ma ko defee pare ñoom ñoo daje délégué de quartier yi ak eh, mairie mbootaay yi ak ñi jiite association yi woo ma pour pour sant ma moo tax ma delluwaat fa boobaak tey amul benn politicien boo xam ne contacté nga ma wala nga woo ma waxtaan wala nga ne ma lii nga def noo ko defee wala lii moo tax nga xam ne daanaka booy xool day mel ne intéressé leen te ñu ci bari ci ñoom yëg nañ ko waaye damaa jàpp ne loolu tamit du bokkul ci liy defaral président ci dëkk bi ndax président jafe-jafe bi mu am doonul ne ñi nekk ci kaw la amal problème amut ak ñoom ñoom benn problème ñi ci suuf it amut ak ñoom benn problème waaye nit ki su amee jafe-jafe da ñëw fekk ko ci jafe bi jàppale ko ba noppi door koo wax li nga bëgg mu jàppale la ci loolu ndax it ñoom bañuñu mm, président Macky Sall bañuñu ku mën a doon waaye na nga leen bàyyi xel yëg leen ndax ay jàmbaar lañu jigéen ña fa ne dañoo am jom am na ci ñoo xam ne ay plate lañu yor di jaay ay gerte gerteeg ay sump ak yooyu boo dajalee woon li ne seen plate yëpp du mat 2500 sax wala 3000 te ci la ñu yor seen kër yi xam nga loolu doy na waar. ñuy xolli gerte ak ñuy xolli gerte ak nangam te boo demee seen kër yi ba fi ne. situation boobu ba ci sa ba ci xale yu góor yi toll ci liggéey daanaka amuñu lu liggéey ay usine amu fi ay dara amu fi. li tax mu wax la eh, situation boobu dafa metti mooy foofa boo fa demee ba fi dañoo am jafe sax defar seen kër yi ndax nit ki balay àgg ci lenn li day fekk mu am xel mu dal fi mu ne mënaguñoo àgg ci état bu tabax seen kër yi miir ko mu wër sax ndax li tax mooy ku ci ne tey boo xëyee li nga naan siiw mooy am ndox mu sa kër naan. ak dépasse bu ñu dundee tey bu ñu leen may wutaloon ay yoon ba nga xam ne buñ jógee jugee foofu balaa mat 20 minutes ñu dugg marché Ocass dinañ man a xëy si ne ñëpp. ñoom am na lu ma seetlu ci ñoom sancaan yi eh, dañuy sentir sax na ñoom nekkuñu biir Touba da ngay dégg ñoom bu ñu fay jógee seen koñ yooyu ña ngi dem Touba te foofu loolu noo ko jàngatee. waaw muy lu metti nag ndax fi ne bu xotal mu baaraka umul xuraa googu boo doon boo dee xool. Eh, am na quartier yu ko gën a sori aslema ko gën a sori aliya ko gën a sori waaye ñooñu dañoo dëkk ak ay kilifa nag moo tax ñu defaral leen seeni yoon mais ñee nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk ñoom ak délégué des quartiers yeeg yenn responsable politique yi nga xam ne amaguñu doole ja seen jafe-jafe moom li fii sëñ bi ak ñi nga xamante ne ñoo yilif dëkk bi bàyyiwuñ ci xel mm. day jëm kanam. lu metti la loo xamante ne bii baal wax dëgg yàlla war nañ koo paase daal. yow yaakaar naa da ngay jàppale président Macky Sall boo ko doon conseil perte gi muy perte Touba ci nangam jàpp yooyu bokk na ci ñàkk def social. ak ñàkk feeteeg responsable bu xam nit ñi xam seeni kii. waaw man nag quartier yooyu. chef de village yi xam nañ ma délégué de quartier yi xam nañ ma parce que lu may def lu ne ci foofu ci ñoom laay jaar ci ñoom laa koy jaar ndax it nag bu ñuy wax dëgg tey boo ñëwee ci dëkk bi. di fi politique il faut nga def maanaam 40 pour cent yi nga def ko social. Ah, waaw dëgg la nit ñi mën nga leen a financer naam ñu liggéey waaye ñooñu foofu dafa am ñu fa toll ñi nga xam ne am nañ ay tali mañ a dem marché liggéey am nañ ndox muñ mën a bàyyi ay ngay xel seen kër ñooñu mën nañoo jël financement waaye ki nga xam ne amul ndox mu mu naan amul yoon wu ko mën a yóbbu marché léegi mu mu dem liggéey kooku boo ko financé fu koy dugal xamu ko. nañ leen jàppale. sëñ Xaadim ñu waxtu wi jeex na yaakaar naa dañ lay jox nga wax sa kàddu gu mujj naa lii daal vraiment lu nu war a waxtaanee la ndax jëlale naa sax li nga ci am waaye ndimbal ak li ci yàlla wax ak li ci yonante bi wax sëñ Tuubaa mi ñu nekkal. jërëjëf maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci invitation bi waxtaan bi wax dëgg yàlla am naa ci mbégte lool euh, di la sant di la gërëm bu baax. Euh, waaye di fàttale rek ne daal ñooñu nañ leen bàyyi xel mm-hmm. président de la république na leen bàyyi xel mm-hmm. ñi ko fi nekkal nañu leen bàyyi xel mm-hmm. ndax toll nañu foo xam ne war nañ leen a dimbali ndax ñoom wax dëgg yàlla boromi jom lañ ndax fi ne coow li muy bari bari li ñuy dund dund ay jafe-jafe teewul dañoo def le tout pour dem bindu ji ba yor seeni carte kon ñooñu jar nañoo gers jar nañoo jàppale te ci dëkk bi lañ bokk wax dëgg yàlla. doon wax ñu fi nekkal président da ngay wax nan wala liggéeyu nu ngay wax. waaw bu fekkee ñi ngi liggéey ci kaw rek la ñu yem des na daal waaw man li ma gis daal des na lu bari. suñu baax di la gërëm di sant mbokk yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci sunu émission bi tey ñu dalal ci Serigne Khadim Dieng nekk fii ci Touba Darou day yëngu ci social waaye day yëngu tamit ndax politique ngir defar sam réew defar sa gox lool tamit te gis na ne social mooy li cas yi gën a urgent ci Touba mooy cas yi nga xam ne tamit ñaari bénéfice nga ci am mooy danga ci am nit ñi waaye da nga ci am yàlla ndax ku manqué woon ndox nga fexe mu am ndox koo xamante ni ab sëñ daara la di jàngale courant nga fexe fexe mu am courant yooyu vraiment lu nit ñi war a xam loolu sax day obligatoire ci ñi yore réew mi ak ñi ciy liggéey ñépp ñu war cee def ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox daje ci beneen jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullah